day barke te moytu bari fay bay siis tey seetlu te moytu aw ay tey muuru tey moytu ba borom këram jooy as gor day moytu ñu naan ko dangay moy dëgër bopp ñàkk kers soo moytu hut fay ku nii fu jaar ñu naan ko yaafuuy def ndigal bay tere lii moo di ab sëy daa am jàmm doo jaaxle jigéen dafay nooy jëkkër ba xiif ba mu mar fonkal may way su meree noppil te léeg-léeg di koy jay jigéen day maandu day ragal te bàyyi ay ay fonk këram ak goroom ak séeri booyam bëgg jëkkër bañ goro kooku narul sëy am na goro yu metti nag jegeel defal waay jigéen day am fulla te xam ki muy roy xadijatu maam jaara maam astu mi jur bay déglul yow jëkkër te nekkal di as gor del joxe del waxtaan xamal ni yaay góor del nëbb bul di wax lépp ci lii di say biir am na ci ñoñ moytul billaay dañuy nar yërëmal loo am bokk leen jàppee ko ab buur moytul doxaan ak janni te bul di bari dóor yaral yeddal yoreel bul fàtte am na yeneen góor te bul di xas ci mbooloo loola da koy lor sopal naxal naxtaanal te bu leen di réeroo te bul gëdd bul gedd bul ngàdd kon da di xiiroo soppal naxal naxtaanal te bu leen di réeroo te bul gedd bul gëdd bul ngàdd kon dangeen di xiiroo